taj temps seetaan eh koor geeg taj temps seetaan waaye temps mooy séeré njoole waaye taj ak temps loolu démb la ey waaye kalso mi si koñ bi jaaxal nañu jommal nañu ey wuy wuy wuy wuy wuy wuy sama ndey السلام Ta. Ta. تا تا اتا يوتمي ta. Ta. Ta. Ta. Wa ki man man man keur gi xanaa kenn nek fi wata jaw ay way samba ay way samba ta kaa jëlama tax suñu de kan dem ka jëlal ma taxi ñu ne ma hôpital atami taat na jëlal ma taxi ñu ne ma hôpital ka ma taxi ñu ne ma hôpital xëccal ma baabi ma toog moom ci tax fi tol teggil na ma koor teggil na ma koor bu wax asama man dara dalu fi toll nii damaa yeewu. Ah. ba may xëdd. laa jub. waaw man tàmm ma yeewu guddi. waaw may di gis kay kaya gi dem na ci ruux rek. may jël si la si fii am am problème. Ah, kon bii beneen la bokkul ak métti gi mu doon métti démb. da daa yokku la. kañaa ma tiital kaña ma daanu foofu am am problème mu tànk. fi toll nii kay xam naa faa ñu dem hôpital rek mu bindal ma garab yu bari na muy bindal bindal garab yu bari ñëpp di ko ci teg seen bët. Ah, ne gën garab yi lu muy gën a bari rek. di ma gën a arrangé ay ay. xam nga ndeysaan. temps. Euh, am na loo xam ne sax bëggoon naa la ko wax mooy di la euh, wax ni da ngaa fee teel a ñëw. Mm-hmm. waaye sama information bi laa la bëgg a jox ndax sama mm-hmm. médecin bi nekk fee. Mm-hmm. Euh, London London. waaw ca kaw bépp itam de. waaw moom moo may seetal samay bagages bima ko wowe telephone di mhm. waxtan ak mom ci whatsapp beeg yoy mhm. dama ne ko fan yaram bi da neexul mom nak dafa dafa dafa ay manam dafa meuna ay gudd faj ak yoy mom lu ne lay faj mom mhm. karaw guy ki sax lu ne lay faj moom lu ne lay faj ay weew ak lu ne dal lay ah, ko wan nga ma bolé moom sama tank bi de lay lay la lolu may la koku dalay wax ni kañ ngay dé wax la heure yi ah, ah bo bëgguma léeg-léeg maanaam comme aay na aay moom aay aay ah, ah, waaw waaw aayam ah, kay mën nga maa boole moom mu na sama tànk bi ma ko envoyé sama photo rek bi ma ko envoyé nee na xool ko ni ma yow mënoo woor ren ndax yow lu ci bari sa biir bi day daw ma ne ko waaw waaw loolu moom dëgg la xam a ci la ma xamal ne mënoo woor da koo zoom rek xam waaw ko pare man damay faral damay faral di yuut te yuut baaxul ci koor tubaab bi raw nañu mhm. dañuy xool ci photo rek waaw ci photo xam lu la daal waaw moom loolu la moom photo la lay xoolee mais fii tant que ñëwoo ñu bës la bësaat la laaj la te li ma gën a métti ci Sénégal mooy mhm. fii ngay ñëw euh, hôpital mhm. ñu war laa rajo xool la daal ñu ne la lan moo lay lan moo lay métti lan moo lay met benn balay mooy wala balaa ñu laa laal dangaa moo moonin ah tamit loolu war nañ tee wax war nañ tee wax war nañ tee wax moo tax sama tànk bi faaw ma yóbbu faaw man na ma bindal ay garab rek na lu garab lu mu gën a bari suba ngoon guddi matin midi soir man nag am na sax benn garab bu ma jox siro la dama koy sex sax essence comme genre biberon yooyu mhm. kooku xam nga man mënuma woor ndax warul génn sama gémmiñ ta ta kor ko kor koor yàlla teggil nanu ko man ak yow déedéet man man bu dee sama tànk bi da nga ko xeebal maa la de ta dama lay laaj ba sama tànk bi da nga ko xeebal yow maa ngi yow ku gën a opp xool ma waa sa médecin boobu ba ma boole woon ak moom dana ma xoolal tànk bi dana xam ne mënuma woor man feebar intérieur laa am ci biir man dama léppay metti man sama dara baaxul man man wéruma ba pare dama am ay eh ya, bu ma bu eh, ma sama sama sama jàngoro ma dama fa du defoon naa fi atte nga Jamu waaw lii nii jamono jooju laa sonn benn jamono jooju laa sonn jamono ji ma defee xam nga kooku doo mën a woor ndax sa an maag sama sabu nu may woore taalaal boo bëggee dégg dëgg yàlla man ak yow teggil nanu koor tej xam nga la laa bëgg xam waaw lu nangul la sa médecin nga ne doo ma nangul sama sama sa médecin dama ko envoyé photo mu wax ma li ci ya. ne ndax dafa jàng

kañaa ma tiital ma daan. kaña kaña kaña koor kaña sax koor du am benn kaña duñ génn koor weeru koor. wax ki ñemewul yàlla. Ah! yow mus ngaa gis kaña weeru koor. kaña di xëdd. Mmh, ba may xëdd laa la dajeeg ñoom waaye da ngay fen laa la wax. kaña du génn eh, te pare sama médecin bi bugguma ay wax. bugguma ay wax ju bari man sax xamal lan la man fi mu toll nii naaj bi daa tàng man ma mun maa woo lenn leen te tey dégg naa météo tey cinq degré la nekk tey. koor moom ara Sénégal moom danoo war a bàyyi koor. man 125 degré. 125 degré man sama yoon nekku ci ndax man wéru am na maag sama sogo boo gisee ni may wax ak yow nii di jékki-jékki di ree xola <laughs> xam ne wéru ma yi rek dèjà rek li yëf yi wax rek rek nga ne wéroo. xam nga wéru ma waaye temps yow yow mii temps yow mii tamit tamit yow tamit sama tànk bi kon bu ma ko xeebal. jékki-jékki di xool benn place nii xola xola nii <laughs> lu may woore kon kay xam lu ma woor gis nga yi may def nii defi def yi man daal kayiti dof fan laa koy jëlee kayiti dof. ah sa médecin bi da lay xool xam li nga la dal kay. loolu la de loolu la yàlla dogal. da ah, nga foto foto foto rek day xam li la dal. waaw gars yi xaaral ma jaar fii maa ngi nii gàll bee daal ma koy kosi rek maa ngi jaar foofu léegi mais père ala bee gaan. ngay fen de. waaw luy da ngay fen bee laay seet da fi am bee waaw mooy mooy mooy ta tànk boobu dégg nga non père waxuma ak yow toogal rek may la sa beewu nday waaw ah, père yaa kan lu tax nga may sa peeru baay ngi nice ok ok yow si koor yi lañ nekk ngay dof dof lu ci kaw niñ di jaay affaire woyu yow ñun ñu ñun ba nekk woyu di doon fàq maan di doon sol bàyyi ko rek affaire de boulot man teew maa ngi teew maa ngi ñëw léegi ki li ngay wax bëgg a yow kii may la day fen te tapet la yow affaire wut ay affaire da wuyu ay yari karaw gis nga ki féppam karaw la ki la ëpp karaw fuuf per lo lepp lu jëntiwu ma ko dama laaj ko ala mais yow waaw mooy moy lima la wax rek yow te génn beneen mooy yóbbaale li lima la wax rek moy sa eh, beewu ndey ak sa peru bay lo rek nga génnaale ko dem baxna kon pare nga yow bee nii yow pare nga ni ci mën yow per man ngay jaawale ak be da ngay fen lima la wax rek mu be motax wa waaw demal gënal kër gi ay lool la yow mom dëkkoo fenn yow per nekkal nii rek gënal kër gi da ngay da nga da nga mën ta wax yow tamit bim taxawé waxo way dama ne la ki moy ki Kiki kii kii kii war dugg ci kër gi. lu tax nga koy bàyyi muy dugg. waaye xaritu xaritu mami la sama kër la dugg nga xam. ca porte ba laay taxaw du dugg. yow da ngaa fàtte ne amoo kër di. bu doon sama néeg sama néeg. ah njuumte day ah, am sama néeg bu fàtte yooyu nag yow yow du lépp la ñuy wax tamit. sama employé nga koñ baa ngi koy wax. man sama boy la du lépp la ñuy wax su doon sama néeg la demee du demee na neneen. koñ bi yëpp nee nañ sama boy xam nga kii bu baax est-ce que. ah hmm. xaritu kalso kan lan so ki day ànd kalso. benn bakkam mi ngi mel ni man ak yow mi ngi mel ni taj temps ah ci te sa sa doom si la doon seet ndaw si lay seet. xaritu kalso la. xaritu kalso la. Hmm. loolu dama koy lijjanti wax sama fama karaay. da ngay toog. jadli laay woo mu envoyé ma position yi jadli mi film xam nga ko moom woo téléphone léegi mu envoyé ma. ay sama baat bu ma joxee ma jox la ci. ba ma wan la birisili ma yem ma yem ma jox fan yi yi. eh koor geeg daj temps kaay leen seetaan eh koor geeg daj temps kaay leen seetaan waaye temps mooy séeréer njoole waaye daj ak temps loolu dembu la eh waaye kalso mi si koñ bi jaaxal nañu jommal nañu eh oui oui oui oui oui oui sama ndey oui yaayooy